teg télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dunde fii la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar-jaar danga ko seetaan dara raw visibilité dinga am promotion dinga am waaw ñoo ngi ci box numéro 96 taxaw un très grand champion macha allah mu liggéey ci élevage bi liggéey bu ama am solo defoon geste bi nga xamante ni si nag Sénégal ak lu élevage ñëpp lu ko yëkkati benn jeune mal jox ko benn association bu nekk ci village yi tubaar fakkaala loolu ak lu élevage ñëpp kontaan ci rafetlu ko tey ñu taxaw moom dégg ko suñu micro mu wax ñu nag euh, sélection bi mu def waaw maa ngi leen nuyu waa Laadum TV maa leen nuyu bu baax di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay kii Pape Maguette la bésërëm nekk bésër Cheikh Issa Diène mu nekk Thiaroye ah waaw sélection bi nag gis nga mu ngi nii ay satu nation moo fi ñëw ak Birame 2 Boy Talla Karkar waaw sélection boobu daal laa def indi ko fii ci foire bi mal bi nag moom mal espoir la mi ngi am 18 mois moom doomu Pastef la Pastef doomu Boy Talla la yaayam nekk doomu Karkar yaayam nekk euh, satu Birame 2 ak Flavia benn doom Flavia bu jigéen bu ñuy wax Tina lañ jëloon ko ci biram 2 mu jur Hercule Hercule moo jur yaayam waaw kii nekk cette nation kii papam doomu nation la yaayam doomu nation la kii tamit Pastef moo ko jur yaayam nekk cette nation ak biram 2 waaw moom ñi bi mhm. boro bi la boobu la waaw moom euh, nation bi mooy yaayam waaw mhm. macha allah téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo loolu Pape Maguette nga fàttali ñu bergerie fan la nekk rek ak seen numéro. mi nekk caaro yi ci guy gi quoi waaw caaro gaar ci guy gi waaw 77 186 21 27. macha allah loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo. may télé bi bégal sama askan